nuyoo fu ñu leen daan nuyoo démb ak euh, bëkki démb euh, di leen gërëm bu baax nag euh, si teewlu bi ñam nag mbégte tey dalal koo xam ne man yàgg naa ko seetaan yéen tamit ngeen yàgg ko seetaan ngeen xam ko bu baax moom itamit ci yàggal def ay émission yoo xam ne daf ci débattre euh, ay sujet euh, yoo xam ne daf leen yitteel soxla leen mu nekkoon fi tamit euh, wala ba mu nekk ba tey c'est selon koo xam ne ku nguur gi doon bàyyi xel la ndax da doon saytu action gouvernement bi la ca baax mu rafetlu ko la ca xaw a dëng mu teg ko ci table bi argumenté ko décortiqué ko Euh, donc tey nag mu am euh, beneen wàll boo xam ne foofu la féete euh, te boobu ba léegi defagul émission télé pour waxtaan ak yéen ci loolu bien que coow li bari na ñun nag ñu xalaat ko invité wax naa ne face to face ñu déggee tour bu mel noonu li ko waral mooy ñun ñooy jàkkaarloo ak euh, benn kilifa boo xam ne ay yëfam yëngatoom da leen a yitteel yéen askan wi ñu indi ko nag waxtaan ak moom ci euh, yi soxal ak yeneen soxal yéen kon sama invité gis ngeen ko nii ci écran bi muy euh, Mamadou Sy Tounkara kenn dootu ko présenté muy conseiller spécial du président de la République nekk tamit jàngalekat foofu ca université bu Cheikh Anta Diop ñu dénk ko lépp lu jëm ci méthodologie ak mondialisation waaye nag yéen li tax ngeen ngeen gën ko xam ràññee ko mooy dafay def comme li may def nii di présenter ay émission euh, Tounkara ma gërëm la sant la ci euh, ni nga jëlee sa temps ndax bés bi tey man ak yow ñoo ko bokk ndax yow tamit boo jógee fii yaa ngi dem fas yéene jàkkaarloog sénégalais yi bu mel ne kon def sii la ak sotti si la nga bàyyi lépp nag ñëw euh, waxtaan si ak askan wi ñu gërëm la ci sant la si ginnaaw ba ñu nuyoo ba pare bàyyi la nga nuyoo askan mi lay teew. Aïssa Diop Fall di la fay sa nuyoo boobu di wax askan wi yëpp euh, yi seetaan. Mm. Euh, si biir réew mi ak bitim réew asalaamualeykum. wa rahmatullah Euh, ñu ngi nii tey toog Aïssatou Diop Fall. ngir euh, li mu wax yëpp euh, ñu leeral ko. Mm-hmm. dafa naa bi mooy première émission bi nga def ñu invité la nekk invité. ñu lay posé question. <laughs> loolu am na. voilà alors donc ñu ñu ma ma bëgg a commencer laaj la. Euh, conseiller spécial du président de la République euh, donc ban domaine ci ban domaine exactement ci ngay conseiller Macky Sall njiitu réew mi. Euh, alhamdulilah rabil ñu sant yàlla suñ borom moom borom asamaan ak suuf si xéwal yi ñu defal yëpp. Euh, bokk na si xéwal yooyu tey ñu mën a toog fii jàkkaarloog Aïssatou ak mboolemu askan wi. Euh, xéwal yooyu yëpp bokk na si tamit. Euh, tey ma doon ma bokk si ñiy xelal njiitu réew mi. Mhm. Euh, loolu xéwalu suñ borom la. Mhm. ndax man mi loolu du woon jànguma woon pour loolu. Mhm. yënguma woon pour loolu. président la République moo woo rek ne ma bëgg na ma ñëw di ko xelal. léegi ñi nekk si cabinet président la République. juróom-ñaari catégorie lañ. am na ñuy woowee ministre d'État. yu wooyee euh, ministre conseil mm. conseil personnel mm. conseiller spécial mm. ambassadeur itinérant mm-hmm. conseil technique ak mm-hmm. chargé de mission mm-hmm. ñooñu ñooy cabinet président de la république léegi conseiller spécial moom euh, kuy xelal njiitu réew mi la si fànn wii wala si fànn yëpp tey euh, ku mel ni Ndongo Ndiaye dafay xelal njiitu réew mi. transport. Euh, si wàllu sport ak ndaw ñi. Mm-hmm. ku mel ni El Hadj Amidou mm-hmm. moom ministre conseil day xelal njiitu réew mi si wàllum euh, cosaan aada. ak lépp mm-hmm. jëm si wàllum culture. Euh, waaye man mi nag dañ ma ni amul fenn foo xam ni fa yem. lépp loo xam ne. xalaat naa ko. mun naa ko yeggee njiitu réew mi. te moom it mën na ma laaj xalaat. si lépp. mu wax ko ci sama li ma xam. ak li ma gëm. Mm-hmm. maintenant Tounkara euh, euh, ah, léegi euh, boobu boobu liggéey. Euh, est-ce que da ngay euh, méthodologie bi laa bëgg comprendre est-ce que moom daf lay jox benn temat comme ni nga ko waxee léegi euh, yow yaay toog gis benn fait d'actualité wala un truc boo xam ne jàpp nga ne c'est susceptible de l'intéresser nga def ay notes wala yu mel noonu wala boog moom moo la moo moo lay confier benn mission comment ça se ñaar yooyu nga wax yëpp la. ok waaw yow yaay gis loo xam ni jàpp nga ni mën na amal réew mi njëriñ. Mm-hmm. mën na amal. njiitu réew mi njëriñ mën na amal ñi jiite réew mi njariñ mm-hmm. yow nga ñëw xelal ko njiitu réew mi ma jox la benn uh, misaal rek mm-hmm. si uh, lu ma xelal uh, njiitu réew mi fan yi si ginnaaw dem mm-hmm. ko ni Sadio Mané ballon d'oram bi bi mu ko amee ba léegi ñëwagul Sénégal maa ngi lay xelal nga invité ko moom ak équipe bu Liverpool yëpp ñu ñëw fii Sénégal. loolu doon na doon loo xam ne. dina amal njëriñ réew mi. waaw euh, lu mel démb rek. Euh, président maa ngi koy euh, maa koy jaajëfal si. dafa tabb. Manar Sall ak Mass Thiam. Mhm. pour ñu jiite ay këru liggéeykaay mhm. ma ne woon président man loolu lu ma yàgg yitteel la ñu jël ñoo xam ne. Mhm. liggéey rek moo leen yitteel politique gu ñu du affaire mbokkoo du affaire dara tey Manar Sall ak Mass Thiam si réew mi ñëpp xam leen si jaar jaar si wàllu yor këru liggéeyukaay. tey président nag man euh, xiital naa ko loolu dama see yàgg wax waaye nii nii tàmbali di ko def nii ne ko bunt boobu nag bu mu ko tëj. nay indi ñoo xam ne politique gu ñu euh, tappalewuñu leen yitteel rek mooy liggéey ak résultat. d'accord mais léegi donc yow ay ay yooyu da nga koy def sous forme de note nga yónnee ko après moom dafay tontu wala daf lay woo tontu wala wala genre. Euh, waaw mën na def moom moom mooy xool nu mu koy defee. da tontu wala mu woo la wala mu yabal la wala. dam nangam mais yow da nga koy def. di nga am retour daal en tout cas. Ah, waaw da def note. Euh, di am retour wala nga bind ko mail wala président moom daanaka dafa dafa connecté. Mm-hmm. Ah, boo ko bindee mail nii dafay day réagir. Ah. d'accord euh, est-ce que Tounkara comprendre nga euh, bu baax sénégalais yi. lu si en vraiment tey xëy na dafa woon sondage à l'époque pour xam ko mais defe naa daal Euh, mun naa wax ne quatre-vingt-dix pour cent pour dire le moins des sénégalais euh, rafetlu ñu woon euh, nomination bi la Macky Sall nommé ci wetam ba pendant presque des jours réseaux sociaux yeeg ñëpp sénégalais yi catégorie bu ñu bokk fu ñu mënta nekk rek yëkkati nañu ay kàddu yi rafet yi ñaaw mais ñëpp benn la idée général benn la mooy rafetlu ñu loolu ndax dañu jàpp ne da nga leen trahir ñoom. bu weesoon nag yow li nga trahiré euh, say ay conviction comprendre nga réaction boobu sénégal sénégalais amoon ci euh, sa nomination. bon euh, léegi Aïssatou dafa am tamit ñu war a leeral yow da nga wax waa wàllu trahir. trahir mooy koo xam ne da nga ko wor. Mhm. xam nga koo wor mooy koo xam ni da nga ñëw nga kóllëranteeg moom dara. Mhm. après nga fecc ko. Mhm. man mosuma kóllëranteeg kenn si tar lu dul ne leen rek laa mooy dañu war a defar suñu réew. kóllëre bu ma mën a séq ak nit. Mhm. mooy aywa ñu defar Sénégal. Mhm. mouvement bi ñu tegoon ci élection mhm. législative 2017. defar Sénégal la tuddoon. te ñi ci àndoon ñëpp leen moo ñu yittee rek mooy defar Sénégal. léegi nag euh, boobu ngay wax benn euh, wor boobu. Euh, loolu amul léegi nga ni wor say conviction mooy man li ma gëm. li ma gëm Aïssatou mooy li ma sama papa jàngal. sama papa yàlla na ko suñu borom dool li wér ak leer. def ma ni yow amuloo noon kenn sa noon li la yitteel rek moom mooy nga fexe ba bay sa waa si réew mi jëm kanam te loolu laa gëm aw ma noon ku ma jàppee noonu nag bon yow léegi loolu sa mbiru bopp la mais man man mii toog aw noon tey jii man su ma Euh, su ma amee benn taxawaay leen rek lay doon mooy lii laa xam ak lii laa gëm dina président la république moom si coobareem moom tànn na ma ne ma kaay jox ma sa xalaat ngir réew mi jëm kanam ah Aïssatou loolu am na ñoo xam ni mën nañ leen ko wax ñu bañ de mais man suñ ma ko waxee man loolu duma bañ te loolu dama si sant yàlla parce jàpp naa ni euh, lu ma yàlla cëralee la. ngir ma liggéeyal sama réew. te si loolu laa fas yéene dox. mais euh, euh, tontu woo ma exactement Tounkara est-ce que comprendre nga quand même Sénégalais yi merci. Euh, comprendre nga ko. ñu mere merci ñaxtu. waaw xam nga l' ai comprendre ngeen tuuti. léegi man mun naa comprendre Aïssatou. Mhm. ak lu mënti xew rek. Mhm. dina ñoo xam ne si ànd dina ñoo xam ne si ànd. léegi tey président nee ma. Mhm. kaay nga may xelal. su ma nee waaw dina am ñu si mer. boo nee déet ah. mu ne déet dina am ñu si mer dina am ñu si kontaan. vraiment nga def yow li nga jàpp. man ma def ma jàpp ne que fi mu toll nii euh, li ma def di xelal njiitu réew mi. man gëm naa ni dafa méngoo ak man li may dox. méngoo ak njëriñu réew mi ma jox la benn misaal. keroog dama gis benn bataaxal bu ma bindoon président 12 janvier ma ne ko monsieur le président yaa ngi naan réew mi dafa salte mm. ñun xam nañ ko mais du si loolu lañ lay xaar liñ lay xaar mooy nga jiite ñu mm. ngir réew mi set te pour loolu maa ngi lay xelal samedi bu jiitu si weer wu ne yow nga wàcc si mbedd yi dem si benn gox ñëw ànd ak sénégalais yi ngir ñu set setal mm. Ah, bi ma fi ñëwee de léegi président tàmbali na ko. kon loolu si yow la ko gisee ah waxoon naa ko ko de. 12 mm. janvier 2014 laa ko bindoon. Mm. léegi juróom-benni at. tegu na. Mm-hmm. président soo ko def. Mm-hmm. Ah, ñu ngi si sant yàlla. Mm-hmm. Ah, maintenant.